Pastef bëggatuma ci wax honnêtement ça n'engage na quand même pour deux raisons Sonko parte moo taal sama kër metti na ma mais loolu loo xam ne aussi li ma xam daal ba xam ko mooy ba moo conseil ma jox Ousmane Sonko mooy li ma wóor mooy mu wóor ma mooy ñu ko wóor duñu ay mbokkam àndu ñëw moom contre bu baaxul ci moom yeewi askan bi ak waa parteem waaw du ñu ay mbokkam déedéet te ñu ñu ñu jël seen bakken yëpp def ko ci libéré barke Mouhamadou Rasulullah joxuñu seen bakkan seen bopp la ñuy intérêt Sonko ku war a xoolaat boppam la lu tax lu tax nga ne non si si ñi mu àndal du ñu àndandoo lu tax nga wax xam nga li ma lay wax non je sais pas non si il faut partager avec dama ni dama ni dama ni discours yi ñoo tënk bi Ousmane toog daan toog dend ak ñoom ak bi ñu jàppee Sonko est-ce que discours la ñuy tënee ci sa diggante yàlla parce que ñii di wax ñii ñii nekk yow askan wi ak ak même Pastef ku ci nekkoon président doo tijji Sonko prison nga koy bàyyi man maa la ko wax il n'aime pas sonk Sonko bu war a xoolaat boppam xoolaat politique am xol fu war a taxaw xam fi mu jëm foofu laay wax sori parce que Sonko bu xoolul dara ba naa xool dafa nooy xool nag moom soo ñu lii loo xam moom mënu ko dindi man mën ma ko dindi moo leen liyee mooy sànnaar c' est Gaston Berger. <laughs> tey ngay doog a wax naan. non si liyee nañu. mën naa ko contre mën naa expliquer leen. xam nga xam ne am naa am naa xol tey laa ko nii bi mu néewee doole. bi ma doon mu nekk ci prison ñu tëj ko mu feebar dañu nekk dañu naan réanimation tey laa xol man jullit la. du ma xuloo ko nekk prison ba xam ne nekk. d'abord non non man du nit du nekk prison nekk réanimation leen laa mën a seq ak moom ñaanal ko yàlla may ko mu wér yàlla mu dellu soit suñu biir bu ñu raag ñu raag day politique ñuy politique sera politique. mais mais mais mais kaw def feebar du wax ci moom. la meilleure façon ñaanal ko mooy respecter ses droits. non man damaa yor droit yi man koy jàpp xam ne danañ jàpp ko yow ci sa bopp waxale soo ko doon wax wax ko wax ko wax ko tey doo faral sa gëm naa ko wax nga xool. doon naf daal laa faral ma ñaata lañ ma àtte xam nga ni yow est-ce que nga ni di yuuxu fi télé maa la ëpp mbooloo xam nga loolu ñii nekk ay candidat yi yëpp maa la ëpp mbooloo ci université yi te ay liggéeykat dama topp man dama bari mbooloo hein xam nga loolu ah gisuma nga dajale leen non laaj leen man damay congrès chaque cinq ans université laa ñu may dégg mais quand di dis respecter ay ay ay ay ay ay ay droit am mooy bu fekkee ne juge justice moo ko décidé daan tout le monde se plaît mais bu ko justice réhabilité. pour xam nga yow di ngeen ñu wax foo xam ne xam nga ne yow Ousmane Sonko sax xam nga ne yow tey fu mu nekk candidat lu jafe lay doon. lu tax obstacle nit kanam moo bari ça tu le sais réhabiliter quelqu'un ci la liste électorale yaa xam ne candidat. Khalifa Sall ak ak Karim Wade nekkul ci nekkul ci liste électorale. pour être candidat oh il faut être électeur et éligible. Oh non même loolu du loolu rek. bu ñu dugalaatee turam non non ko dugalaatee turam moo bëri delloo Sonko ci liste électorale taxu mu très bien waaw mais dina récupérer élection yi passé Khalifa Sall ak Karim Wade defuñu parrainage ba ba liir ba tudd leen ni bokk na ci ñu masal parrainage am na wala amul est-ce 2019 lim lañ leen ni ñoom seen parrainage mat na est-ce que nekk nañu candidat xam nga dañuy fa daa foo xam ni nekkul foofu sëñ ñi dañuy làqatu naa Sonko bu bëggee sonk nag nañ génn xeexal Sonko ne pour nekk candidat xeex bu ñu ñoom bu ñu soog ne kon jàngkat nekk. bu ñu xeexee ngeen jàpp leen. waaw mais attends bu ñu manifester ngeen tëj leen. mais fàtte ah, leen ci kasa bi tous les pays du monde. bàyyi leen ci kasa bi ba mu ba mu ba mu neex la ñu jékki-jékki eh, génn waat ay manifester nañ bi ñu rey waaw eh, eh, tegaat leen ko ñun manifester nañ fii en 2012 ñuy rey te dañu ko non mais xam nga tëj ngeen wax ñun dañu manifester 2012 ñuy rey. ma ne non non ah non amul. ma ne non am na dañuy wax rey nañu douze. kenn reyu leen en. ah si ana ana le gars jo kii sama mbokku non attends. yaa yu dix non yaa yu dix morts ëpp na ko. benn responsable politique deewu ci. ay ay xale malheureusement ay xale. voilà un policier malheureusement ak ay ñoom moo tax xale yi xam loolu Sénégal bi wuy ma loolu xam léegi. Ah. malheureusement c'est chaque chaque fois doomu jàmbur ñoo ciy dee. c'est doom c'est malheureux mais c'est loolu laa mujj di décrier man ba 2012 passé ba xool yi xew laa ne man dootuma reyal tel kenn. ma ne dootuma del ci mbedd man dootuma del kenn ci mbedd mais loolu la man man li dee. 2012 moo naan yéen da ngeen ñoom dañoo ay nitu fitna lañ. ci fitna ñu ngi utiliser les voies de recours. yi leen di wax la nangu nag lenn su non non nangu non man du euh, ma man ma ma ma li xam ne amul. bu ñu waree sonk bu waree dugg ci liste électorale na ci dugg amul benn problème mais damay la sonk la gën sonk bu ko leeroon ni am na possibilité nekk candidat du xa mais da nga wax sànq da nga wax sànq nga ne Yewwi Askan bi ak Pastef nekkuñu ànduñu ak ak ak ak Sonko Sonko na xool boppam. oui euh, bëgguñu ko. d' abord Yewwi Askan bi ci lan ngay fondé wu pour. di xoolal li xew la ah, man nga la xoolal yaa ngi gis maa ngi gis bi nga xool ni ay mbokk Sonko nga xool Sonko nga xool. soo ko xool ni ko buut bi nga jàppee ñi waaye taxawaay bi la waaye Askan Wi wala dëgg dëggam ah? yow yow nga ni on a seul seul candidat du waa Pastef ñoo ko wax amul benn alternative ñuy tey parrainage juróom dem jël seen parrainage. c'est leur sauce interne. non waaw c'est leur ah, stratégie politique politique mu sauce interne. ma ne yaa ngi ko teel sauce interne c'est faux c'est faux. sauce interne de ngeen war ñu jiite. ah non mais ñoom. ah non non non ci loolu. non même wax la dafa mel ne ñoom dañu ko déggoo de. waaw bu ko déggoo déggoo lu bon. fiche de parrainage ñu récupéré dama ne déggoo bu ko déggoo déggoo lu bon déggoo lu bon. ce ne sont pas des non dama ne bu ko déggoo déggoo lu bon kon stratégie ba baaxul sama xel bopp te baax